suñu mbokk mbokk internet yi ñu ngi fi ak euh, Médina rue 25 angle 6 toog ak 10 000 problèmes 10 000 problèmes yow nu ñu lay présenté. waaw je m' appelle Mouhamadou Fall alias 10 000 problèmes ambassadeur de Détenu di nuyu mbokk internet di nuyu les sénégalais sénégalais di bëggoon maanaam logo bi mel nii 10000 maat la from laaxir kuñ muy gaaw rang muy gaaw si gën a gaaw na góor a jaajëf. tamit yow yow dañuy dégg da wax rek mais sa carrière ñun gisuñ gars yi nee nañ ñoom gisuñ la ci rab bi quoi présence bi amul. waaw instant bi nag wax dëgg yàlla merci waay waaw waaw waaw loolu la gars yi yoo gis nag maa ngi si benn label nag quoi bu tudd euh, maa ngi si benn label bees wax dëgg yàlla maa ngi si benn label maa ngi soog a maa 2020 nag laa benn label ko franchement parler quoi waaw bu tudd bu tudd bu tudd Africa Star moo tudd mu ngi nekk waa Parcelles quoi. am na tamit xool beneen site am na tamit sit tam bu tudd Rankang Actu même label moo ko moo ma ko ubbil maa ngi si label bi nag xam naa bientôt incha allah rabbi balaa Ramadan moom di ngeen seen bagage yu bees yi ñëw quoi su côté musique quoi waaw mais neexaguñu si musique bi en 100 cent ñu ngi si ambassadeur ñu ngi wax ñu ngi way am naa 4 single mu ngi ci waaw mu am na 4 single am na 4 clip tamit. xam nga doon naa fitri ak ñeneen mais li tax ñuy album ba léegi defaguma ko loolu dëgg la maa ngi si nag quoi xëy na kereelu moo yàgg moo demee nii quoi en même temps ma xaw a si musique bi nii rapport yu bëri maa moom xool jubawuñu parce que si cadre musique moo tax parce que yenn concert yi maa gars yi jubawuñu si yenn concert yi maa yenn lan moo tax waaw parce que xëy na li may wax arrangé wala wala suma mën dama leen saaga wala suma dama leen xool classe parce waaw nga ximal ko ataaya waaw euh, euh, du concert yëpp laa nekk de te concert yi ñi nekk si concert yi bu dee rab dàqanu ma ko bu dee tàng gënu ma tàng bu dee public ëpp nu ma ko bu dee cartonné gënu ma nekk gang si wala band si kaw podium ñoom xam na li may wax baax rapport yi xam na ne baax li baax xam na baax li xew doom fu gis na yenn concert parce que maa ngi ñoom jubóowuñu affaire bi lobby la comme lobby xoolal ki franc-maçonnerie boo si bokkul bokkoo noonu la demee moo tax nga gis moo tax doo ma gis yenn concert yi doo ma si gis moo tax sama créer musique mu xaw a yéex noonu demee parce que ñoom ñoo leen jàppale ñoom ñooy moyen léegi nag yow boo jubóo la ñoom nag léegi ñoom dañ lay écarté bàyyi la sa bopp quoi mais xam naa ne yàlla moom bu jeexasul rek bàyyi waxasul lu jeex quoi non man non man du ma man ma jubóog ay góor jigéen du ma du ma jubóog non non non waaw bëgg mu wax tuuri kenn nag mais xam na seen bopp parce que dama war a répété waat dafa waxaat wax waxaat yàgg wax seen tuuri quoi mouvement bi ñu fi nekk ay canard xam nañ ko te xam na li may wax tu vois maanaam boo déggee feeg maanaam góor jigéen du euh, juutu dong góor dafa bëri façon dafa bëri ay ñoo xam ne seen bopp sax da ngeen xool ni xam ne ñii ay góor jigéen lañu di la vérité nit ñi bokk na moo tax yàlla na sax naa sumu téléphone waaw waaw waaw loolu moom Sanekh foofu dafa nelaw ndeysaan sànneex foofu dafa juum Sanekh tey sànneex ñu ngi ko waroon xaar ñu ngi ko waroon xaar si leneen mais pas mu dem di plaider ay mbañaankase ay pambay te te jëkkewul si sànneex mu suñu ndoybaan la jëkkee dama toog dëgg wa pambay xam nga mbañaankase yooyu daan ni daan ni daan ni ni daan ni ci moom moo wax si moom moo njëkk wax avant muy wax waxu Sanex waxu la njëkk wax après ma ñëw si Sanex muy Ndoyebaan day def bii di def bii di def bii xoolal lu ñaaw lii na naka la ko góor jigéen la ko mën a wax maanaam parce que ñoom ñooy fréquenté ay góor jigéen parce que lobby bi nekk lobby bi li bu xaalis la te xaalis boobu ña fa nekk ba seetunu ay giw yi na fa nekk ay jënki ay góor jigéen ay wiskatu brown coke ñoo fa nekk di toog seen même lobby la jotaay bi moo fa am moo fa dund sangara nañ fay naan bon nañ fay tox assist drogue bi gën a seer nañ fay def te ñoom ñoo yàqu sudi parce que ñoom ñoo am moyen ñoom ñooy les vrais milliardaires yor xaalis di utiliser baadoole yi parce que la loi c'est pour les pauvres di utiliser les jeunes sénégalais nii politique nii borom alal nii keneen keneen nii góor jigéen ñi tey neex ñu xam ko si réew mi moom ci Sanekh laa njëkk a dégg mu ñaam mu naan ay wa yàmba xam nga euh, communication dafa am solo boo nekkee kilifa si réew ñoom il faut ñu wax leen dëgg parce que ñoom jooy dañuy yàq moom moo njëkk def théâtre naan ay wa yàmba ay wa moom Sanekh moo tax ma xam moo tax ma xam yàmba parce que mu ko njëkk ñëpp xam ko nu jóge fa mu demaat si mañaan kese pambay góor jigéen Sanekh est-ce que war naa def loolu dafa yàgg na wax benn wax ay namb si lii moom moom nag Sanekh ndëgg Sanekh nag moom moo judd si mbaam namp si xaj loolu muy wax gars yi noonu tey bu dama ko bëgg wax moom Sanex si boppam Sanex moom na nga xam ne yow yaa judd si xaj ndamb si mbam xuux yow yaa judd foofu yëfu jàmm dëgg en tant yow Sanex yow mais cër bi la Sénégalais jox bu bi la Sénégalais jox même bu dara sax bàyyi télé bi nga nekk yow ak ni la fa jiitalee ak ni nga nekk journaliste nga nekk citoyen Sénégal dëkk kees nekk doomu julit ngay def théâtre liggéey la tey nga ñëw di jouer parce que ñoom ko mos nañ ko jouer ñoom mos nañu si ay théâtre góor jigéen mais il faut ñu dellu suñu xel tam si li jot a passé lépp léegi si àdduna dem ko la continuité man nag damay xas formation yi di xas góor jigéen yi di xas sàcc yi di xas cag yi moo tax du ma sax ba liggéenti mais yàlla laa nekkal te leen tax a jóg mooy xeex li lislaam xeex diine parce que in diine inda allah lislaam góor jigéen affaire dëmm la pambay su fekkee yow mañankase su fekkee yow ay ñoom saaneex ñu la défendre saaneex est ce que yoon la dem di seeti ñoom pambay góor jigéen ak ñoom ki ak mañaan est que yoon la mu mu leen seet si mais xam nga gars yi ko may 2 millions wala 3 millions wala 4 millions mu téye maag bi naan naan pambay góor jigéen yi man maay seen gannaaw man maay seen avocat yi avocat yi yow yow mën nga wax plaider doomu xaraam yooyu est-ce que mën nga leen wax plaider fexeel nga plaider sa bopp ak sa waa kër nga bàyyi ay góor jigéen di leen plaider góor jigéen kenn du ko plaider góor jigéen kenn du ko jàppale góor jigéen doomu xaraam xaj sax moo gën te Sénégal lii dafa bëri ay ndeyu góor jigéen beaucoup de pd bois yi sàcc yi caga yi lu bon ni mu amee si dëkk bi nañ wax si loolu mouvement yi fi nekk di wër di duul yor seen làmmiñ di dur ay mato di jaay la affaire di doomeram nañ wax si góor jigéen yi parce que kilifa du duñu wax parce que kilifa xam na góor jigéen góor jigéen dafa mën a sosalaate mën a yàq dara mën duul léegi nag ñun suñu genre rappeurs yi fi nekk mooy mouvement Y'en a marre yi doom yoon nañ wax non waaye kooku taxaw maada fakk la du ay taxaw sax ay taxaw góor jigéen la parce que lobby la lobby la lobby góor jigéen Oxfam moo leen financé man man yanama laaj ne kon yàgg nañ lekk ci at xaalis la muy jaag mais ana la muy góor jigéen yi su at balaa ko maa li ma jaax mooy Afrique su at européen bu ñëw Afrique bu demee xam na ngeen ko après waa pareeguñu pour lii góor jigéen su ñoo ñoom bu yab mais lobby la mooy li ma mooy lobby la léegi na jullit di xam seen bopp euh, suñu constitution islam na nga ko dugal bi as nan woote assemblée ñu jël suñu mais fii du pays laïcité dong Senghor nag moo nu yóbbu ñu Senghor moo nu lor moo fi y a pas de musulman nan ñu woote fi bi ñu si loi l'islam def ko si constitution bi lu la jàng école ay Jean ay Paul ay Mendy moom la lay jàngal lu ñu tuddee quartier yi ay yëfër ay catholique mais ana sëriñ si ñoom lu leen tuddee école duñu la fa jàngal Baay Ñas duñu jàngal Baay Laay duñu la jàngal sëriñ Tuubaa am la jàngal ñoom ñun leen naxee lan lay jàngal il est temps nag ñu ñu ngi toll si monde axru zaman ñu ngi toll si monde xoolal franc-maçonnerie bro toll si monde góor jigéen éliminaar yi yàgg na mais tey la gën a fës am nañ fi sees am nañ fi ay base am na femme bu taxaw ni moom xool ngeen xool ki prophète la ngeen moom waa yenent la nga xam ne ñii ñooy seytaane vrai lu ne ñu ngi koy créé ay technologie ak ay niveau addu mondial dañuy fen dañuy duul loolu yëpp ay ay la mbiru àdduna la mais yàlla moom moom àdduna bi ñoom seen ay pexe dañuy sonn rek billaahi wallaahi yàlla moom moom àdduna te bu mu tax àdduna bi tàggawul kenn pakata xalaqa samawati wal ardi fi sittati ayamin suma sawal ars bi bi nu kenn lu ne ñu ngi def di duul di jaxase nit ñi di ji ay film yow fu demee ba nga dugg seen kër yi ay boy ndaw da ngay jàpp da ngay dugg benn kër ñu seen télé papa yaay doom teg film màccante raayante ñu koy seetaan mais wax leen si loolu ay boy yu ndaw yor ay kóol tactile di manipuler dugg ay prono wax leen si loolu wax leen si boy gel yi di jouer prono wax leen si wax leen si góor jigéen yi wax leen si wax leen sanmet ñu tog nday sanmet tabaxaan beneen kaso wax leen si sanmet wax leen si jeermaan ñu génn nday biir jel bi wax leen si policiers yi ni ñu defee ay violence si biir kër yi dugg si kër jàmbur yi di agressé wax leen loolu jàpp tuqal yamba bëgg ko rey mais yaa jënki yaa trafiquant de drogue yaa gëwin yaa lépp mais ana góor jigéen yi ñu jàpp si digg town bi mais nañ si wax si góor jigéen dañu bëgg réew mi te yàlla moo tax wax leen si góor jigéen ñi ak franc-maçon yi ngeen wax fekkee fekkee ay bande ngeen fekkee ay fekkee ay jullit la may ndayu pambay ma ñànk sa jàpp nday nit di saaga doomee xaraam yooyu mais la may ndayu loolu wala dëkk bi dëkk mother fuck la ay góor jigéen taxaw jàpp nit ñi di tànkal nit ñi ay réew mi ni ku leen neex yàq deram ba pare askan ni parti boy mouvement yi nekk fi di duul boo jàppee benn nday politicien ñëpp bëgg naaw ma ñu nekk si jéel bi ñoo ma intéressé mais pas mais pas sàkk yi ni jàpp ne ñu du naan ay ay nan dem day ñu liggéeyi chaque vendredi nday ñu teg stand ay marché suba ngoon mel na ñu nekk si ay jihadiste nan waxante dëgg te bàyyi nday fen bii di la vir yàlla moom dëgg toujours di ñaanaat sénégalais yi nan delloo suñu xel si yàlla quoi waaw parce que maa émiro ilaa la yabudulaa dëkk bi bari na ay bala bari na ay seytaana bari ay góor jigéen bu nu xaata jamonoy Luut ak jamonoy Nuux ay yaa salaam àdduna fi alamin jamono yooyu noonu nga xam ne ni nga xam ne ni ki nga xam ne sax nekkoon na yenente ba pare doom sax di dafa bokkoon fi suñu yàlla ñu yi waxumaa nag ay suwe suñu mbokk ak suñu dëkk yàlla gisul xam ne mu gis ba ma émiru illaa la yaabudullah bàyyi te góor jigéen yi nan lañ yemale seen place fii la dëkku lislaam te bu bàyyi fa jógee bu xam lépp am na fu na borom nanu gëm yàlla xam delloo suñu xel si yàlla nag ngir yàlla xoolal te góor jigéen ñi ngir yàlla arrête arrête quoi bàyyi non à la fin arrêté yéen seen seen bopp yéen na ngeen dëppante na ngeen màccante mais ngeen may nit ñi jàmm quoi